Ibrahima la. fay nga nekk premier vice-président bu conseil départemental euh, bu Kébémer membre membre fondateur de l'APR Kébémer nga bokk ci APR euh, déjà naka nga gisee euh, njiitu réew mi tànn gi mu tànn Amadou Ba pour mu nekk candidat de Benno Bokk Yaakaar pour l'élection présidentielle de deux mille vingt-quatre. voilà Ndeye di la di la gërëm ci di wax ne rek euh, choix Amadou Ba bi nekk na choix boo xamante ni dañ koy rafetlu di dolli rek di feddaliwaat suñu coloré ak ànd ak le président Macky Sall ci choix bi mu def ndax choix la boo xamante ni choix bu tegu ci yoon la euh, vu que Amadou nekk na nit koo xamante ni nit ku ñu naw la ci réew mi nit la boo xamante ni aussi euh, il a marqué son temps ndax liggéey na ci réew mi liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib ci ndombay tànk yi nga xam ne yëpp président dénk na ko ko donc bu président amaatee confiance ci moom séddaliwaat coloré boobu jël deñ ko ko def ko choisir ko tànn ko mu nekk candidat coalition benn bokk yaakaar donc ñun en tant que militant de l'APR et membre de cette coalition du ñu def lu dul di ko rafetlu ak di fas yéene continuer di ko jàppale pour que lii nga xamante ni moom la président bëgg ci moom yàlla sotal ko. Euh, euh, ñu gis ni bi nga xamante ni tànn nañ Amadou Ba euh, subitement kii di Aly Ngouille Ndiaye dafa tekki ndombal tànkam ci bopp ministère de l' agriculture et de l' équipement rural naka nga gisee réaction wu Aly Ngouille Ndiaye. voilà d' man Aly Ngouille Ndiaye dama xam naa ko bu baax on a d' excellentes relations yu relation yu rapport rapport yu rafet la am ñu suñu région. mu nekk aussi nit ku baax mais quand même par rapport ak décision yi mu jël personnellement man rafetlu ma ko te xaaruma ko woon ci moom ndax dama gis ne Aly Ngouille lépp lu président ma mës a yëkkati rek moom bokk na ci ñi ànd di ko ci jàppale. mu nu doon taxawaay koo xam ñun membre fondateur parti bi ñu nekk militant parti bi doon ko rafetlu ndax gis naa ni taxawaay bu am solo am na ko Linguère maa ngi rappelé rek jour ba muy def meeting de ralliement am di ñëw pour jàppale président Macky Sall boobu ñun ñëpp ñoo déplacé woon dem fekk ko Linguère. kon tey bu jëlee décision bi décision la décision la boo xam daf ñuy det lool te xaaruñu ko woon ci moom ndax itam dañoo war a xam ne ñoom ñu mel ni Aly Ngouille Ndiaye lu ñu am rek président Macky Sall moo leen ko may bu leen askan wi xamee ba parce que yéen leen jàppale président Macky Sall moo tax ñu xam leen bu ñu amee alal ba tax mën a taxaw ne dañuy fëgg dana bëgg nekk candidat war nañu xam ne président moo leen positionné ci ay position ko mën a am mais war nañu aussi xam ne am na ñu mel ni ñoom ñoo xamante ni daj nañ ci parti bi lu rawul ñoom liñ ci daj. dañoo amuñu dara ba tey ñu ngi kon ne naan président Macky Sall fu mu joxoñ foofu lañ joxoñ dama lay wax rek ñun peut ñun sonn nañ ci parti amuñu ay responsabilités yi ñu am ñoom ñun lim daj ci parti peut-être ñoom sax dañu ko ci ndax ñun ba ñuy ànd ak Macky ñoom ñu ngi nekkoon ci beneen côté bi kon tey li ñuy wax rek ñoom nañu jàpp ni ñoom c'est pas parce que dañoo bëggoon nekk candidat nekkoon ni candidat tànnuñu leen que Macky Sall ki mu tànn ñoom dañuy xajamal affaire bi affaire bi du noonu dafay jaadu des fois ñu delloo tuuti njukkal président Macky Sall ci lim leen defal ndaxte ñun loolu lañ doon xaar ci ñoom mais taxawaay bi ñu taxawee ñoom nañ ko ànd ak seen taxawaay mais ñu xam ne que seen zone aussi bu ñu jàpp ni rek que bu ñu génnee militant ya fa nekk ñoom la ñu àndal. di gis nga bëgg dem rek ko ministre Samba Ndiobène Ka organisé na rencontre Linguère pratiquement ci dix neuf maires dix sept maires yëpp. fëttaliwaat nañ coloré bi ñu ànd ak le président Macky Sall dañ koy jàppale kon tey guddi yi ñu toll ak bëccëg yi ñu toll tey dañuy lancer appel rek nañu xam ne ñiy génn ci coalition bi naan dañuy nekk ay candidat nañu jàpp ne militants yi ñu am du seen i militants ay militants Macky Sall la loolu laa bëgg ñoom ñu xam. kon yéen da ngeen a pare battre campagne ci ko ci wetu Amadou Ba jàppale ko. dañuy pare battre campagne ci wetu Amadou Ba battre président Macky Sall pour continuité maanaam li président yéene ci réew mi. doon ko liggéey ci réew mi pour mu mun a continuer ndax ah lu ñu mën a wax rek président li mu fi nekk yëpp liggéey na lu am solo ci réew mi ci côté économique ci côté social ci côté développement infrastructure lu ne président def na ko te loolu mu fi def yëpp li ci am solo rek mooy continuer bi ci loolu la ñuy dox te ci loolu pour ñu mën ci dox comme moom am na yaakaar ci Amadou Ba moo mën a àggale loolu ñun dañuy ànd ak moom di ko jàppale ci loolu pour que mu am ndam Euh, Ibrahima Khalil aussi. Euh, ñu bëri euh, Ibrahima Diallo ñu bëri dañu ne APR wala benn Bokk Yaakaar dafay tas parce que tànn nañ Amadou Ba ñu bëri dinañ génn ber seen daara daara comme kaaw Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen kon tasu APR boobu wala benn Bokk Yaakaar bi noo ko gisee. non Benno Ndeye Comba Benno Bokk Yaakaar du tas APR du tas dafay fekk ni rek. ku jàpp ni yow boo nekkee candidat tànnuñu la boo génnee mer mën ngaa fëkk ay nit yóbbaale leen loolu yaa ngi nax sa bopp ndax gis nga ña ña nekk APR yor ay ndombay tànk jàpp ni ndombay tànk yooyu moo tax nit ñi topp ci ñoom non non nit ñi dañu topp ci ñoom parce président daf leen jox confiance képp koo xamee ne défier nga président ba ñàkk confiance président yaakaar naa ne boo jàppee ni militant ya fa nekkoon mën nga continuer ba yaa ngi tax yaa ngi ñàkk yaa benn boo yaakaar du tas de day gën a foor gën a amaat doole pour ñu préparer élection demaat ci élection ci jàmm te li ma ciy ñaaxaat Amadou Ba rek. Mhm. na gën a yaatu ndigg gën a yaat gën a yaatal ubbi ubbeeku dem ci militant yi rencontre ñëpp bañ a yem rek ci waa benn bokk yaakaar bañ a yem rek ci waa APR mais dem seeti askanu Sénégal comme li président Macky Sall demoon dem wër réew mi dem à la rencontre des waxtaan ak ñoom pour que ndax population bi ñooy wote. gis nga jour élection du ay affaire coalition du ay affaire benn bokk yaakaar daal ndax nit ki mën na laa wooteel sa fekk bokkul sa parti kon nag nañu nañu nañu nañu nañu am tuuti respect ci population yi na nañ am tuuti respect ci militants yi jàpp ni man damaa mer rek wala la ma bëggoon aw ma ko te bu ma génnee xeex nit ñi dañu ànd ak man bu dee loolu moo fi nekk kon jërtu kenn di politique ku yeboo xaar buñ la dóoree wala ñu xeex la rek kon lim am solo mooy nañu ànd nekk benn ñu fexe au moins pacifier espace politique Sénégal fexe ñëpp am jàmm ñi war a politique politique ñi war a xëccoo xëccoo jàmm ne ñooy réew mi ku nekk dem élection ci jàmm Euh, ñu bëri nag dañuy wax ni Amadou Ba euh, koo xam ni mënul gagné euh, Parcelles seen yi naka lay gagné réew maanaam politiquement amul base loolu ñoo ko gisee. non bu mu set bu mu xam nga mësul gagné parcelle d'accord loolu dégg naa nit ñi di ko wax. mais diggante boobu élection yooyu ak yi am na évolution bu am solo bu fi am si diggante bi am na waaye bu nit ñi am aussi kon li am solo tey mooy nañ jàpp ni ñun élection présidentielle la ñuy dem te élection présidentielle da ngay xool réew mi fu comme ñun ñu nekk Kajoor nekk nekk département Kébémer yeneen ñi nekk yeneen département yi yeneen jigéen yeneen département ci réew mi ñooñu dañuy dajaloo ñoom ñëpp votel benn nit te benn nit boobu bu fekkee nag da ngeen di jàpp ni que parcelle am na parcelle am na électorat d'accord dëkkam la for kañoom la foofu la dëkk war na faa mën a gagner mais am na yeneen gox goxaat ci réew mi yoo xamante ne même bu fa Amadou Ba dëkkul bu président Macky Sall taxawee campagne ànd ak ko votel leen ko ko votel ndax a a yemale dem fu nekk ci réew mi rencontré militants yi rencontré responsable ba ñu xeet kenn fexe ba mu am massive mbooloo mbooloo bu bare am pour mën a dem élection ndax diggante deux mille douze ak léegi nangul nañu ni benn bokk yaakaar yokku na mais nangu nañu aussi am na ñoo xam ne génn nañ ci ñu dem feneen mais ku génn rek sa morom dugg na mais li am solo rek nañu jàpp ne élection deux mille vingt quatre yi du nekk élection nga xamante ni day yomb ni élection yi doon yombee ba tax ku nekk tëdd nelaw jàpp ne mën nañu gagné élection yi kon nañu ànd liggéey fexe yokk suñu base fexe wuti ay mbooloo pour gagné élection yi. est-ce que jàpp nga ni Amadou Ba mooy profil bu baax bi pour yeggalu yeggale liggéey président Macky Sall. mais mooy profil bu baax bi ndax itam Amadou Ba mën naa wax ne PSE pratiquement moom moo ko doon doxal te tey kenn gënu ko ko maîtriser tey aussi kenn gënu ko xam li président bëgg ci réew mi ndax président moom la jël wóolu ko def ko premier ministre président ku mu def premier ministre rek am na yaakaar ci yow kon bu mu am ci moom ba dellu si defaat ko candidat te président Macky Sall kenn gënu ko bëgg réew mi ndax bëgg réew mi bokk na ci li tax ak sàmm kàddoom bokk na ci li tax mu nekkuma candidat kon nag tey jii bu xalaatee Amadou Ba moo gën ci réew mi. man damay wax ni Sénégal yi nañu jàpp ni Amadou Ba def bokk ci ñi gën ci réew mi kon nañ ko jàppale pour que élection 2024 moom mën ko gagné. Euh, président Sall fas yéene battre euh, campagne ci wetu euh, candidat wu Benno Bokk Yaakaar noo gisee loolu. mais loolu am solo la loolu moo war sax ndax ndax tey président Macky Sall battre campagne ci wetu Amadou Ba dafay dolli confiance day tax. ñi nga xamante ni dañoo naan dañuy laam-laamee ni wóolu gëm ko wóolu Amadou Ba na ci président na ci mën a indi ay leeral ay firnde yu leer te am na ay militants yoo xamante ni ñoom gis Macky Sall muy baata campagne ci wetu Amadou Ba day gën a tax ñoom ñi gën a jàppale Amadou Ba ci taxawaay bi mu taxal te tey am na ñoo xamante ni ci élection ak ci campagne électorale ci la ñu mën a gisee Macky Sall te bëgg nañ ko bëgg goo xamante ni ku Macky Sall joxoon dana ko jàppale kon damay ñaaxaat rek Macky Sall na campagne ci wetu Amadou Ba ànd ak moom jàppale ko pour que élection 2024 yi ñu mën ko euh, ñu gis ne aussi Aminata Touré euh, déjà mi ngi invité Amadou Ba ci débat politique publique naka nga gisee mbir mi est-ce que bëgg ngeen Amadou uyi ji si euh, débat boobu ak Aminata Touré waaw wala déet. man li may conseillé Amadou Ba ci débat boobu moment bi du moment du moment débat. xam nga moment wu lan la ku nekk prouver li nga am ci base électorale ku nekk prouver ñi ànd ak yow nga dem seeti say militant waxtaan ak ñoom ndax li Amadou Ba programme bi mu am askanu Sénégal ñoo ko moom ñoom la koy won ñoom la koy présenté donc soxlawul mu ci organiser débat de contradiction kii di wax kii di tontante donc tolluwuñu foofu kiy tontu li ñu réaliser ci réew mi mat na tontu bu fekkee Aminata Touré nag daa bëgg débat na xaar ba campagne yu démarré ñu débat bu boobaa buum nañ ko débat mais tant que ci campagne électorale man li may conseiller Amadou Ba mooy na dem à la rencontre des populations na dem seeti militants yi mais ay débat contradictoire loolu vraiment ce n'est même même pas le moment lii ko ñun suñu parti jàpp nañu moment bi wax na nañu war nañu waxtaanaat suñu biir conscientiser yenn militants yi nga xamante ni balaa ñu leen di fëkk ndax ay am nañu mer ñoo xamante ni dañuy jàpp ne seen mer moom war na tax ñoom ñu mën a tibb ci benn bokk yaakaar pour mën a ànd ak ñoom war nañ mën a tibb ci biir APR les anciens du parti pour ñu mën a ànd ak ñoom kon tey ji yi wax ji wax ji mooy Amadou Ba na dem à la rencontre de ces populations là présenter leen programme wax leen bëgg-bëgg bi mu am séddaliwaat coloré ak militant pour que ñu mën ko jàppale moo gën ay débat jàkkaarloo. Euh, Ibrahima dernière question ma laaj la si euh, wàllum détenu politique yi xam nga actuellement euh, ñu ngi wax ay plus de mille et quelques détenus politiques euh, ñenn ñi nee nañ leen libérer pour apaiser climat social bi euh, pour jàmm daal gën a mën a sax Sénégal d'accord nga ñu libérer détenus politiques yëpp surtout Ousmane Sonko waa wala déet. non par rapport ak détenu politique yi man li ma ciy wax rek mooy dañ naa ay détenu politique mais damay jàpp ne ku deful dara kenn jàpp la te réew mi bu fekkoon jàpp-jàpp yi amul kon am na loo xamante ni du fi sotti mais bu ñu jàppee ba pare nag li may jaadu mooy nañu delluwaat waxtaan ndax réew mi fu mu mus àgg waxtaan moo fu mu mus a àgg rek waxtaane nañ ko kon man li may wax rek mooy fi ñu jëm élection yu jëm deux mille vingt quatre li am solo am solo am solo mooy ñu nañu nañu organiser ay waxtaan ñu conscientiser population ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk réew mi que ñu nekk ci kaso bi que ñu nekk ci biti man yéene ma kenn kaso bu ma sañoon ku ñu nekk ci kaso yi dañuy génn ñu fekk seen i njaboot seet seen i mbokk nekk seen i wetu jaboot seen doom kan seen i wetu militant loolu moo gën ci réew mi mais réew dafay am ay loi yu ko téye képp koo xamante ni yoon jàpp na la dama jàpp ni yoon moo am firnde jàpp la te yoon bu la waree bàyyi tam dina la bàyyi man loolu laa ci wax leneen li ci des rek mooy dialogue bi président organisé dialogue d'accord dialogue national la mais jaadu na ci gox goxaan yi pour ñu gën a jege askan wi ñu organiser ay dialogue ci biir gox goxaan yi waxtaanaat suñu biir ñaaxaat suñu rakk yi suñu mag yi ñaaxaataat responsable yi pour que ñu xam ne réew mi ñu ñoo ko bokk te dafay jaadu pour ñu mën a dem élection yu apaisé que waxtaan am ndax li ñu tàmm mooy ku ci nekk jour élection da ngeen voté ndànk nga ñibbiwaat sa kër te li koy mën a indi mooy nit ñi nañ waxtaan balaa ñu fa àgg donc loolu laay wax. merci beaucoup Ibrahima Diallo kontaan naa. maa ngi lay remercier bu baax merci merci aussi merci. may fàttali ni Ibrahima Diallo premier vice-président nga euh, ci conseil départemental bu Kébémer nekk membre fondateur de l'APR Kébémer merci Ibrahima Diallo.